sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ iblis shaytaani rajim ñu ngi sant yàlla bu baax moom mi nga xam ne moo ñu sàkk te tàggut kenn moom ñu te kenn di ñu wërsëgal te kenn dimbaliwu ko ci yàlla sant nañ la yàlla gërëm nañ la lu luñ la sant rek doyut ndax liñ ñu defal daa bari ba kenn mënu koo lim di santaan maam borom Tuubaa mi nga xam ne moo ñu dajale tey ba bés bi mën nii. muy assemblée générale bu daara fédération Safinatul Aman Touba Bawal jëwriñ général sëriñ Ndonga njaay jëwriñ cellule Dakar bi nga xam ne ñoo aye woon tey wara a def assemblée générale Serigne Baxaw Jenn Ibrahima coordonnateur sëriñ Mor Diouf ci kàddu gi Serigne Modou Sène liñ fi jot a tënk mooy dañoo dox at te ku dox at nag war ngaa mën a toog saytuwaat sa bopp ndax alxuraan wala boroom xam-xam yi sax jiitaloon nañ ne nit ki saa yi dem rek war naa mën a toog ba yàgg mu defaat taxaw seetlu ci boppam. loolu nag moom lañ doon def tey ci daara ji ñu tudde woon ko assemblée général li nga xam ne tënkoon nañ ko fi nag te doon ko waxtaanee bokkoon na ci daara ji. war nay taxawal li nga xam ne mooy journée xasida war nay taxawal tamit li nga xam ne mooy ziar. li ñu jàppoon ci point yi nga xam ne moom lañ jotoon a waxtaane moo doonoon mensualité yi tënk nañ ko euh, euh, journée xasida bi moom dañuy bàyyi lañ wax ba def ziyaar ba pare ci kanam sëñ Muntaxa yees lu waat fa ndax ba mu toogee ba tey xëy na daara ji amagut jot ak man faa dem ziyaare ji ndax corona bi nga xam ne jaar na fi ak xat-xat yi nga xam ne amoon na fi waaye ñu ngi ci di ko waajal li liñ fi waxtaane waatit bokkoon na ci ay murit saa bu ñu dajalee seen addiya ba pare am na fu ñu ko war a dugal te fi ñu koy dugal tamit weesu liggéey maam borom Tuubaa bi képp ndax génnuñu ko loolu tamit waxtaan nañ ci ci wàllum lu jëm ci kees gi bi nga xamee ne pare nañ tamit ubbi nañ li nga xam ne mooy divers jëwrin euh, ubbi ko euh, ñu waxtaane ci li nga xam ne mooy activités yi daara ji ak daara ji nan naka la war a mën a doxe jëm ci loo xamante ne dana dem ba fi ñuy dégg daayira yu mag yëpp wala daara yu mag yëpp ñu dégg leen fa ndax dañoo dëkk Lambaay bokk ci Sëñ Tuubaa Euh, don ay taalibeem te kenn ëppale wuñu ci tamit ndax ñoo ngi fàttaliku visite ba nga xam ne sëñ Abdou Lahat defoon na ko fa te ne woon euh, waa waa waa wa waa Lambaay seen seen seen seen kii ca Serigne Touba mooy. seenu lay ca sëñ tubaa de mooy jumaayee jii nga xam ne rëdd nañ ko fi ak kër sëñ tubaa kon làmbaay am na lu rëy ndax sëñ Abdou Lahat général la woon doonoon xëy na ñetteelu xalif général des Mourides mu rëdd jumaa yaay Lambaay mu rëdd euh, kër sëñ Touba ak Lambaay kon daa mel ni Lambaay am nañ ab cër lool ci wàllum sëñ tubaa kon nag daara ji moom mi ngi noonu ñuy woo fépp képp koo xam ne bawal la dëkk wala mu cosaanoo fa ak nu mu fa cosaanoo ak fu mu fa dëkkee rek mu ñëw ñu ànd liggéey bi xam ne mbooloo mooy doole aljamaatu rahma la borom xam-xam yi waxoon kon ñi ngi ciy woo ñëpp ñëpp fu doomi bawal nekk tey dégg kàddu gi na ñëw ñu ànd liggéeyal sëñ Tuubaa taxawal bawal loo xam ne ëllëg buñ buñ demee ci kanam sëñ Aliou Diouf Lambaay ak sëñ Babacar ak sëñ Momar Mané ak sëñ Ababacar Ndiir dinañ ne leen ñun seeni sëtkat lii mooy li nga xam ne moom ngeen ñu bàyyi loon waaye fii ngeen ko bàyyi woon fii lañ ko yóbbu kon loolu tam ñun ñëpp ñu bàyyi ci xel xam naa kon kàddu gi xam naa duñ ko guddal waaye ñu ngi sant mbooloo mi daara ji ñiy toog ci ginnaaw ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax seen teewaay rafet na lool am na solo lool jërë ngeen jëf bu ñu wootee rek na ñëpp ñëw bu kenn tardé kenn ku ci nekk loo jàpp rek bàyyi ko yal na yàlla suñu borom fay leen ci loolu yiw kon kàddu gi dañ koy jox xam naa suñu sëriñ di suñu lépp di sëriñ Basirou Diouf. moom sëñ Bàcc Diouf moom sëñ Aliou Diouf Lambaay taaral jataay bi lool bu teewee rek mel na ni teewaaleel na waa kër sëñ euh, Babacar gépp teewaaleel na waa kër sëñ Momar Maane Mbay gépp teewaaleel na waa kër a Ababacar Ndiir gépp kon fu tund bawal nekk ak ku seexu sëñ Tubaa rek moom tey teewal na la ci jataay bi moom la ñuy jox kàddu gi incha allah kon sëriñ Basiru bisimila alhamdulilahi wasalla abada ala alladi bi lana huda bada alhamdulillahi alladi rafa aqwaama wa axfad axirin mustamiuna alkiram fi hadha almakan uayyikum bi tahiyat alislam uxadim bi tahiyati sahibul fadila wa darajat rafia cheikh muntaxa al bashir ayadahu wa nasra mbokk yi eh, samay mbokk ci ci deret samay mbokk ci ak taalibe ak ak yoonu murit noo ngi leen di baax te di leen siyaare ci jataay bu mag bi ñu bokk di am contentement bu baax ci teewaay bi teew bi ñu teew ci euh, barabu tedd bii di kër Sëriñ Tuubaa Pikine waaye daje fekk ñi nga xam ne euh, suñ borom daa dogal am pas-pasu liggéeyal Sëriñ Tuubaa comme ni ko ñëpp amee waaye mu nekk liggéey boo xam ne lu jafe la waaye pas-pas ak dog ak njàmbar moo ciy jàllal doomu bu nekk. ndax lii ngi def wax dëgg yàlla mooy li leen war su ngeen defal leneen itam da ngeen wàcc yoon ndax sëñ Tuubaa bi mu ñëwee woote suufas Bawol ñett rek nekkuñu foon waaye ñett rek ñoo jógoon dem wuyu ji sëriñ Tuubaa ñooñu nag lenn rek lañ soxlaan muy lii nii tey kii jóge Mbuso kii jóge Mbajaan kii jóge cep kii jóge ñaxab ki jóge labet kii jóge fépp ci li wër Làmbaay ñu ànd diggee sëñ loolu moo doon bëgg-bëgg sëñ Babacar Tegaan Njaay moo doon bëgg-bëgg sëñ Mamoor Maane Mbay moo doon bëgg-bëgg sëñ Aliou Diouf Làmbaay man mii suñ borom dogal ma doon sëñ doom sëñ Massamba Diouf moom sëñ Aliou Diouf laa ñëw fekk seen jataay bi kon dafay mel ni kon li sëñ Tuubaa bëggoon ci Bawol kon defe naa defe naa réussir na ko moom sëñ Tuubaa te diine ji ngeen nga xam ne da ngeen ko indaale Dakar da ko yéen koy sàmm moo tax ak bëgg ngeen bëgg ak bëgg ngeen bëgg yoonu murit ñàkk a noppalu waaye jël jël seen lépp def ko ci sëñ Tuubaa moo waral jotaay bu tedd bi ngeen bi ngeen daje maa ngi koy rafet lu baax di am contentement bu baax ci loolu bu loolu jàllee mbokk yi Euh, suñu borom daa dogal dëkk bii di Ndakaaru ma faral di fi nekk depuis depuis 2013 laa fi njëkk ñëw bi ma jógee daaree sëñ Mor Diop ci sama njàngum xam-xam bi ma jógee Touba ñëw fi waaye ginnaaw bi ma tukkee tourné ci élection yu bëree bëri ci ak réew yu bëree bëree bëri waaye yàlla daa dogal ne dama fi nekk di nekk ba yàgg sama am loo xam ne am na yéene wala mébét boo xam ne bëgg naa ko jàllale ci Ndakaaru muy liggéeyal Serigne Touba waaye liggéeyal sëñ Aliou Diouf Lambaye ndax xam ngeen ne sëñ Aliou Diouf Lambaye jamono yi muy topp sëñ Tuubaa euh, histoire sëñ Musaa Ka bind na lu ci lu bari sëñ Musaa Ka na ko sëñ Aliou nag nekkoon koo xamante ne moom sëñ Tuubaa ko seexal waaye avant sëñ Tuubaa ko seexal daa am fom fu ko fekkoon koo xam ne buur yi say nijaay lañu koo xam ne sama am doon woon na ak nguur koo xam ne sa baay bi la jur nekk nekkoon na ci nguur gi nga bàyyi ko dem toppi sëñ Tuubaa ba topp suñ tubaa doonagul dara la woon ndax sama baay suñ ma sàmm dafa ma nettali na ma kat suñu Aliou bi mu wuyu ji Serigne Touba booba 70 murit la suñ tubaa amagun boobu suñ tubaa amagu téeméeri murit amagu ko kon daal yoonu murit matagu téeméer 70 bi ci biir 70 ci la suñu Aliou Diouf Lambaye wuyu ji bu wuyu ji nag bool gépp la wuyu loon ndax yàlla mooy dogal lu mel noonu yàlla suñ borom subhanahu wa taala saa suy wootee day am ñoo xam ne suñ borom daa dogal ñoom la ciy jiital yàlla daa dogal mu jaar ci seen loxo suñ tubaab woo leen ba ñëw ak suñu tubaab tegaan ne leen li li kuy taal ci am ndox xam leen ne man na te mooy lislaam joo xam ne ma ko fa a taal ci làmbaay te seen jëmm yi ci lay nekk. kon loo xamante ne bi am nañ ko ci yoonu mu dañ ko sante ñetti ñooñu jiitu avant ak mboolem ñu baax ñu fa nekkoon waaye signal yu nag wax dëgg yàlla liggéeyam ci kër Sëriñ Tuubaa man dama ci gëstu lu bëree bëree bëree bëri si wax ca lu nekk nga xam ne ngir maa ngi jébbali ji xawma ak caay-caay ku ne xam bawol dé mu na mu demee woon ndax suñ bay jaxate dama koy xawma suñ bay xawma Moussa Ka naan bawol bonoon na waaye tey moo fi gën ba ñu amee ki fi gën kon nag loolu suñ borom daa dogal ñun ñi nga xam ne ñoo ay sët ñoo ci mën a bay suñu waar xaal suñu tànkatu bay ci la wane liggéeyam Sëriñ Aliou Diouf Amba nan la taxawoon ci Sëriñ Tuubaa nan la doon liggéeyal Sëriñ Tuubaa li Sëriñ Aliou doon liggéeyal Sëriñ Tuubaa itam ñun suñu jëm yi rek ndax keroog ba muy joxe bakkanam ngir lislaam booba metti woon na lool waaye signalé amut kum diiroon bagg ku seerafal la tegoon la tegoon dàkk ba Sëñ Tuubaa da nga ko wax keroog ba Sëñ Tuubaa woo Cheikh Ibrahima Fall woo signalé Juuf Lambaay digal leen ne leen yàlla moo a digal tey ci tey ma ataaye leen ci sama loxo ataaya jox signalé Juuf Lambaay ataaya jox Cheikh Ibrahima Fall muy ewal muy deuxième seerafal jël boobam deuxième bi sotti ko ca teen bi signalé Juuf Lambaay ëmb ko ci mbubam jaxase ko ak suuf ëmb ko ci mbubam ne yomal xel lu ko jëmee pour jaam ñi signalé bu ñu demee ba ndakaaru gi tey boo ko tuddee ñoo koy laajte boo tourné région Sénégal boo doon tàmba ba ne signalé Jules ñun ko xam loolu ñun ñoo defut ñu war ñun ñoo ñoo fayul naar bi xoromam. te kat histoire signalé Jules Xambaay wax dëgg yàlla néewoon na ci seex yi Sëñ Tuubaa bari na ci ñiy tudd ñoo xamante ne bi tulluñu ñu Jules Xambaay ci deedeewee waaw ndax ndax sëñ Tuubaa daf koo gërëm daf koo bëggoon ci xolam ba def koon ko wala du xal bi ne ko ba mu na ko dikkal yiwee ko dellu réewum làmbaay man bamba làmbe naa la ngeen ngi làmbaay njaacaar nga doo palante maa sa baay maa sa baay jooju nag doomi xolam la ndax damaa dégg suñu nett mas nett ne sëñ Tuubaa dafa moo sëñ dafa a woo mu ñëw mu ne ko wala xal bi wala du sal bi ñaari moo am doomi digg doomi xol doomi digg faat na doomi xol la la def waaye nag dellu làmbaay soo delloo làmbaay làmbal loo làmb daj boo demee nga fekk koo tolleeloon ak koo maatoon ak ku la ak koo ëppoon ñëpp dana leen wàccal ci suuf ndax teeñ tanoor làmbaay den deesu ko dégg koy dégg kon lam bëggoon am na ko waaye nag mbokk yi mënuñoo wane ci làmbaay lenn bàyyi sëñ Yàlla Juuf làmbaay mënuñoo wane sëñ Yàlla Juuf làmbaay fàtte bawol fàtte làmbaay kon li man lii doon sama sama bëgg-bëgg mooy buñ muy muy télé yu mag yi ñu fay dégg programme sëñ Yàlla Juuf làmbaay ak ay ay waxtaanam ak jaar jaaram ak li mu liggéey ci bawol ak li bawol réussir avant ndax booba dafa am si fii dafa metti woon na trop te ñoom dong ñoo ko jaayante woon ndax gën gën leen riche histoire kenn gën la métti fuñ jaar Sëñ Tuubaa wax dëgg yàlla kon ku ne xam ne kabaake baak mex yeeki pencu lambaay toxal na xërëm tax saxal na laay-laay ku xam ne la fa daan xew mbedd yi dëkk yi ñu daan woote ay sabar ñu daan fo ñu daan woote ay ay lu kenn xamut Sëñ Aliou Diouf Lambaye ginnaaw yàlla moo ñëw feeñal fu loolu lépp waaw dem Sëñ Tuubaa defar ko mu ñëw woote sanc ay daara sanc ñii bi gée mu sanc Sëñ Tuubaa ko digal mu sanc ko jaarul ñii bi kese ndax bari na dëkk yu mu jaar muy bokkuloo ji muy mure muy deegeer dëkk yu bëri dafaa jaar ak Colobane Saloum fu mu sanc jógee fa daan fii la ma Sëriñ Tuubaa doon wax fa mu toogoon garab bépp gom toogoon nga suñu buntu kër garab bépp googu foofu fa Sëriñ Tuubaa toogoon ci ba muy nattu jumaa yi Tuubaa ji garab googu même chose moo nekkati fu foofu noonu mu ne fii la ma Sëriñ Tuubaa doon wax kon nag mbokk nañ bàyyi xel te xam ne amuñu lu gën a kawee Sëriñ Aliou Diouf Lambaye kër Sëriñ Aliou Diouf Lambaye tam fi ne daanaka daanaka mën naa ne bu ñuy xoolit mi ngi mi ngi géem nañ ma baal ci waxeen bi wallaahi alazim te ñàkk liggéey ñàkk wane liggéey Sëriñ Aliou Diouf Lambaye donc moo ko waral nag man lii sama yël lii sama bëgg-bëgg ak li nga xam ne naal naa ko mooy am na daayira boo xam ne ne tàmbale woon naa ko sëñ Aane Ndiaye mii bokk ci jëwrin yi sëñ Yàlla Diop ca Pakola ma ci jëwrin yi Ahmed Ndiaye ak ñoom Talla Badiane moom dëkk Mbadiane bokk ci jëwrin loolu lépp mooy fexe ba kër kër sëñ Yàlla Diouf ñu dundal ko fii ci dëkk bii ndax kenn ëpp leen fi man damay dëkk dama yàgg Pikine dama fi dem di tourner guddi gu jot ma dajeek nit ñi kii naa maa ngi dëkk camaan kii naa maa ngi dëkk lobet kii naa maa ngi fee kii naa maa ngi dëkk fee foo tourné ña nga fa pàkku làmbaay bii ni ngeen ko amee waak say ko fi na ngeen amee fii waak amuñu ko fi ni ngeen ko amee fii ñeneen ñu bëri amuñu ko fi na ngeen ko amee biir Dakar kenn amu fa kon nag kenn wut liggéeyal fii ci Ndakaaru benn seex lu gën a kawe Serigne Aliou Diouf Lambaye tant yu bëri ngeen ron waaye ronu tant Serigne Aliou Diouf Lambaye lu lu lu raar la ci dëkk bi naam nag am na ñuy wootal ay doomam waaye nag sëñ Aliou moom la sëñ Tuubaa gërëm nañ na leer ci bopp nit ñi sëñ Tuubaa sëñ Aliou Diouf Lambaye la li mu yoroon ndax keroog ba muy ñaan ci tibb suuf sa ñaan ko sëñ Aliou Diouf mu jëlaat mbubum mbubum sëñ Tuubaa summi ci oyram jox ko sëñ Aliou Diouf ko dellu Lambaye kooku signal signal ko suñu kenn ci moom moom moom ko defoon keroog ba mu ko defal daaj loo taabal ji comme ne bool ko si maxtaar si la ca Jurbel suñu àll juf la mbaa toog Jurbel di ko liggéeyal ba suñ tuwaa ne ba ngi doy na suñ tuwaa range la ci téere yi ba mu ñëwee dafa xool téere yi range bi rafet lool suñ tuwaa ne ko araf bu ci nekk soppi mbokk ba ngeen am jëggal kon loolu mbokk yi loolu kum doon lu tudd ay palais àjjana gu suñ tubaa sotti suñ tubaa eh, sotti ma ci xam nga ne loolu liggéey bu rëy la liggéey bu riis la man nag lii sama yéene mooy fu ma fekk lu baax ma tàmbe waaye rawat na nag lii ngeen di woote ndax wax dëgg yàlla maa ngi fi daal na sama xel te xam naa li la sëñ Aliou Lambaye bëggoon li la sëñ Tuubaa bëggoon ànd naa ci ak yéen fas naa ci yéen bokk li may rëcc mooy yéex ge tàbbi waaye nag sëñ moo fi ginnaaw yàlla sëñ muur mii moo tax ma xam fi moo ne ma li gën mooy bokki taalibe dañ fa daje nga ñëw ci ñoom wax dëgg yàlla li nga fi gis doy na ma dal sama xel bëgg seen bopp bëgg fa ngeen dëkk waaye bëgg sëñ Tuubaa rek la keneen ku wax def leneen lu dul lii tam yaa ngi ci safaan ba wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëñ Basiru ci kàddu yu am solo yi sant nañ lool gërëm ci lool kon mbooloo mi ñu dégg ko noonu rek xam ne bawal moom liñ am da rëy lool mën mënta yem ak dara mënta yem ak dara boo amee sëñ Aliou Diouf mbay am sëñ Babacar Ndiaye Thiergane am sëriñ Momar Mané mbay am a Ababacar Ndir rek day mel ni am nga lépp. kon loolu tamit fii sëñ bi soññee rek ñun ñëpp ñu dox jëm ci rek xam ne li ñu am ñun waa Bawol kenn kenn kenn kenn amu ko kon ñu góorgóorluwaat ci loolu doxaat ci liggéey bi doxaat jëm ci alxuraan dafa waxoon ne tilka ummatun xadda xadda laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum euh, ñooñee nag dafa am maanaam maam suñu maam yooya seen wàll wéy na ñun la suñ wàll des ñoom bu ëllëgee ñoo seen boroom ñoom la waaye ñun itam ak suñ ak ak suñ jëf kon loolu tamit mat naa bàyyi xel lool ñu dox ñoom ca tànk ya ñu doxoon damay fàttali mbokk taalibe yi toujours wa isibtala ibrahima rabbahu bi kalimatin fa atammahunna xaala inni jaa'iluka linnaasi imaman xaala wa min zuriyati xaala laa yanaalu hadiya zalimin yonente yàlla ibrahima yàlla da koo sa ay baat wala ak jaamu yàlla mu matale ko yàlla ne ko def naa la njiital nit ñi mu ne ko damaa bëgg nga def ko ci samay sët tamit mu ne ko déet say sët duma la ko garantil topp yoon wa nga toppoon bu soobee yàlla ma def li ma defoon ci yow ma def ko ca kooka ca ñoom waaye képp ku lu topp li nga topp bu boobaa tam siquma moom dara kon ñun suñu maam yooya am nañ leen xam nañ leen saxoo nañ leen ndamoo nañ leen waaye tamit ak suñu jëf mooy li sëñ bi woote mooy li daara fédération safinatul amaan tamit bëgg a taxawal rek lu génnuñu ko kon ñoo ngi santaat bu baax sëñ bi sa teewaay di sëñ euh, sëñ donga mi nga xam ne mooy jëwrin national mi ngi lay sant bu baax ak sëñ Ibrahima mi nga xam ne mooy jëwrinu cellule bi kon xam naa dañuy jox le coordonnateur euh, bu cellule bi muy sëñ moor Diouf incha allah bu ko defee mu tëj kàddu yi sëriñ bi defal ñu weeku ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah bisimilah barke borom Touba jërëjëf sëñ Modou ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci kàddu yi di ziyaare sëñ Basiir bu baax a baax ci kàddu mbooloom yépp di ñaan suñ boroom lii di yéeneem ci maam ju teddu jooju yàlla na ko suñu boroom yeggale. barke Seexul Xadim xam naa suñuy kàddu dañ koy jëmale ci woote mbooleem dooyu bawal yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi tey taalibe Serigne Touba. ñu leen di woo ci liggéey bii ndax liggéey la boo xam ne ku ko dégg rek war nga cee tàbbi ndax dara gënu Serigne Touba lépp Serigne Touba la te li sëñ mu du développé ci suñ mag ñu baax ñooñu kenn ku nekk am nga ci ndax ñun ñëpp làmbaay la ñu tiitaroo bawal la tiitaroo te ku wax làmbaay ak bawal wax ñetti jàmbaar yooyu kon nag ku nekk boo xoolee sa diggante ak ñooñu ak sa diggante ak Serigne Touba rek lu ñu yëngal ci dëkk bi te nga ne fi rek am nga ci responsabilité kon nag ñoo ngi woo mboolem dooyu bawal yëpp ci liggéey bi di wax ne euh, ku ki bëgg ay leeral mën ngaa jokkoog man mii ne ci kàddu gi ci 77 773 47 51 maay coordinateur bi jëwriñu cellule bi sëñ Ibrahima Jenn dëkk Mbadiane Góora 77 415 96 515 516 82 97 kon ñoo ngi woo mboolem doomi bawal yëpp ci liggéey bi di leen jaajëfal nag yéen ñi teew ci ensemble bi bu baax ndax yitte yi bari na waaye yitte ju ëpp doole liggéey Sëriñ Tuubaa mu amul ci kaw suuf kon ñu gën a laxasaayu baat raxasaayu waat bu baax te xam ne engagé nañ engagement boo xam ne incha allah danañ ci am ndam ndax lii firndeel yi mooy tàmbali liggéey bi sëriñ Sëriñ Aliou fi ñëw teew te daal nañu ci ay jotaay yu bare bari sëriñ Sëriñ Babacar ñëw na fi seet si liggéey bi sëriñ Sëriñ Aliou ñëw na fi ñëwaat fi suñ xel war naa dal bu baax a baax la ñu sëñ laay waxan ca parcelle it duñ ko fàtte mukk kon képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu rek na nga xam ne liggéey bi kanam la jëm kanam la jëm dañuy soññee nag ci ñi nga xam ne tàbbisi nañ tey euh, exemple bi ñu jël mooy sëñ Mourou seen mii toog doon leeral léegi bi mu tàbbee ci liggéey bi ak léegi yàggut li sëñ Omar Ndiaye di wax liggéey bi fu ci waaye yem yaa ci yemale sa bopp moo am ku ñëw li sëñ Tuubaa def ci yow génne ko wane ko jëriñ jëriñ jëriñ ci waa daara ji liggéey bi kenn moomu ko ni ma ko déggee ñëw noonu la ko sëñ mu déggee ñëw noonu la ko keneen ak keneen déggee ñëw waaye ku ñëw li nga am da nga koy indi bul ko bul ko nëbb li nga am génn ko teg ko ci taabal ji foo mën a jëriñ daara ji nga daj nga jëriñ daara ji foofu ñu ngi ziar ñëpp di wax salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon bisimilah ñu nangu ñaan aousubillahi sami alim min asheytaan irajim yi bisimilahi siraatal mustaqiim siraatal ladiina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin